waa dama koy dama koy firndeel rek. Mhm. effectivement euh, bi nga xamee ni bii président euh, Macky Sall président de la coalition Benno Bokk Yaakaar def na ndaje bi fay fële ci palais de la République euh, fësal na ki nga xam ne kii moom mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar muy le premier ministre Amadou Ba. ñun wax dëgg yàlla waxoon nañ président yi que ne d'accord wuñ ci choix boobule. te dañoo bëgg aussi euh, ñu def li tubaab di wax cohérent ak ñun donc gannaaw d'accord ci choix bi dañu préféré euh, jébbal président la république suñu démission euh, dès que réunion bi par rek lañ ko ko yëpp wax it loolu accepté ko. li nu mel yaa ngi ko doon xaar kon. waaw bien sûr. Mhm. bokkoon na ci possibilité. Mhm. alors yow lan ngay wax di nga xamante ne ñoo ànd ak yow fu mu nekk nii ñu pare pour bokk yi li ma wax moom li ma leen wax rek d'abord mooy choix bi li ma doon xaar choix bi bokk ak sama gis-gis te dañu nekk ci démocratie ma ànd waaye yemuma ci ànduma ci ne lii président Macky Sall moom ma ko dénkoon muy ministre de l'agriculture l'équipement rural alimentaire ma delloo ko da hmm. ca wala muy yàgg naa leen wax li nga xam ne li moom laa xalaat ci yow sa candidature Benno du ko porté yow yaa koy porté maanaam c'est en dehors de la coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw loolu loolu laa wax loolu du ko ku ko mën a porté dinañ ko xam bala muy yàgg. tout à fait je confirme. suite à la rencontre qui s'est tenue cet après-midi au palais de euh, président de la coalition Benno Bokk Yaakaar a choisi euh, le premier ministre Amadou Ba comme candidat à la coalition Yaakaar j'ai également, de mon côté, décidé euh, de marquer mon désaccord par rapport à ce choix et de démissionner du gouvernement du Premier ministre Amadou. Vous étiez préparé à cette démission apparemment c'était quelque chose de logique dans les cas. Comme quand on n'est pas d'accord sur des choix, il faut savoir poser des actes pour le montrer. Cette candidature va, être portée par quel mouvement, par quelle coalition Vous y avez pensé dans, les,